gars yi ñu xaar tuuti ah ñu xaar tuuti ma leen di masawu si couvre-feu bi waaw dinaa si sànni wala tuuti kàddu si loolu noonu mais dafa am benn affaire boo xam ni faaw faaw mu leer tey quoi faaw mu leer comme ni ngeen ko gisee si miniature bi on parler de Sakho et Mangane ak euh, Mass parce que nekkoon na benn affaire boo xam ni créé woon na polémique affaire de tribunal xewoon na ci te jëloon nañ ko xam nga yaa ma gën a nëw quoi nañ xaar tuuti rek yi ñëw. jaajëf waay Cheikh Diakhaté bëgg naa la de ñu xaar tuuti gars yi ko quoi gaa yi commencé jàppise ñu waxtaan si quoi parce que c'est c'est c'est très important peut-être nag ñu bëri euh, bàyyi ñu si xel mais dafa am chaque fois ñun dañuy topp action quoi dañuy topp histoire waaw ciao xam nga Awa Badiane maa lay ziar de waaw mbay Sow Modou Diagne maa lay bëgg de sama sama sama sama sant sama doom baay jaajëf waay Kajaali Kajaali Njaay bëggee de bëggee nañ ñëpp nañ xaar tuuti rek waaw comme ça voilà on est à cent personnes presque bu ñu yeggee cent personnes incha allah ñu commencé def affaire bi ñu poser des questions benn live bu dix minutes la benn live bu dix minutes juste pour euh, du sori ko comme ça ngeen comprendre un peu li nga xam ne moom mooy euh, photo bu ma dugal bon demande la dafa perte contre canal wala <laughs> Netflix daf ko mujjee fay parce que dama jot benn annonce boo xam dama gis ni carrément ni Netflix dafa jël li nga xam ne moom moo di saaxoy màngat te ñun ñëpp yëg nañ fi li nga xam moom moo di problème mu saaxoy màngaan mooy waa Canal Plus ak ki nga xam ne moom moo di Mass bu Black Diamond MASS euh, waaw affaire boobu noonu bu mu xewee nag créé na polémique quoi on a vu beaucoup de personnes en ont parlé man mii sax waxoon naa si li nga xam ne moom moo di saaxoy màngaan euh, si plagiat bi nga xam ne moom nañu wax parce que des fois Sénégal bu sénégalais bi plagiat yi rek lañuy lañuy lañuy la ñuy focus nii dafa plagiat quoi mais tandis que bu yeneen dëkk yi plagiat yi li nga xam moom moo di sénégalais yi day mel ni euh, yeneen dëkk yi ñoom ñoom idée originale bi quoi mais maanaam sénégalais bi lu mu def peut-être waaw mooy loolu quoi Mass am na benn vidéo bu mu defoon Yes Dakar boo xam ni mu ngi doon expliquer parce que vidéo boobu laa jot seetaan ku ko bëgg a xam lépp lépp lu xew mën nga dem si li nga xam moom moo di n'a pas beaucoup de temps temps bu ndaw la nii rek parce que <laughs> a lu ma a ñor la quoi si affaire a nekk problème biir Sénégal mënaguñ ko genre euh, succès si li nga ni moom moo di xeex boobu noonu contre canal ba affaire yi dem li nga xam ne moom moo di tribunal ba affaire yi dem si li nga xam moo di si yoonu police en certain moment ma toog euh, gis ni carrément ni euh, pas canal mais Netflix jël na li nga xam ni moom moo di série boobu tudd Saaxoy Mangane Saaxoy Mangane ay sénégalais ah ay sénégalais ñoo fa nekk Kanaba si la nekk y a d'autres artistes yoo xam ne ñu ngi woon foofu noonu kon tey jii su ma gisee affaire boobu noonu daf may daf may daf may xaw a jaaxal quoi Mass il a été payé mooy maanaam Netflix fay na ko xaalisam parce que moom dafa ne woon un million lay laaj li nga xam ni moom moo di canal moom la wax ak li nga xam moom moo di avocat yi fan la ñu mujjee at li nga xam ne moom moo di wàllum tribunal parce que tey jii nii bu ko bu ko Netflix tegee rek ça veut dire que li nga xam ni moom moo di consensus wala masse dafa perte contre li nga xam ni moom moo di canal est-ce ma raconté leen brièvement li nga xam moom moo di éri bi masse dafa defoon benn série boo xam ni euh, biir Sénégal la quoi série boo xam ni euh, policesque la policesque mooy manaam boo xam day am li nga xam moom moo di ay détective ay enquête amoon benn affaire bu spécial boo xam ni daf ko si yokkoon mooy maanaam li nga xam ni moom moo di affaire de euh, set maraboutage quoi si li nga xam ni moom moo di euh, série bi affaire boobu noonu nag intéressé woon li nga xam ni moom moo di classe Canal Plus Afrique bi nga xam ni jamono jooju noonu mu ngi waaj a ubbi bu mu bi leen approché maanaam waa Canal comme moom ni mu ko waxee ñoo ñëw approché li nga xam ni moom moo di mas biñ ko approché ñu gis ni carrément kii lu mu def nii c'est du jamais vu mooy maanaam venant d'un africain surtout c'est du jamais vu gars yi apprécier li nga xam ni moom moo di travail boobu noonu apprécier li nga xam ni moom moo di intelligence boobu noonu ñu ne ko ok dañ lay produire loolu la maas wax dañ koy produire après bi ñu ko naree produire nag Euh, mu togg di xaar mu togg di xaar mu toog di xaar gars yi ba léegi waxatuñ dara si li nga xam ni moom moo di loolu moom nag il a cherché avec ses propres moyens ba def li nga xam ni moom moo di long bi si long boobu noonu d'ailleurs man foofu laa découvrir ki nga xam ni moom moo di Yaa Awa euh, foofu noonu da li nga xam moom moo di ñoom Lamine Ndiaye beaucoup d'acteurs sénégalais ñoom la ñu invité foofu noonu de grands la ñu invité si li nga xam moom moo di long métrage nga xam ne moom la mujjee présenté aussi tam li nga xam ne moo di waa Canal bi ñu ko laajee après nag si lañ jékki-jékki ñu gis Saaxi Mangane bi ñu gisee saaxoy màngaan nag euh, au début nous on comprenait pas que ni problème dina xew quoi parce que tamit saaxoy màngaan ay sénégalais que joué Canabasse mu si biir c'était c'était très chaud quoi kontaan nañ si après si la am benn révélation bu am mooy maanaam Mass Black Diamond ne gars yi dañ ko plagiat nan lañ ko plagiat moom moo yóbbu li nga xam ni moom moo di produit mi bu mu yóbbee produit yi gars gis ni carrément dafa am benn genre euh, génie intellectuel si li nga xam ni moom moo di bind bi si la si la si la créer débat si la créer débat ma def si video ñëpp wax si mais li ñu jaaxal mooy Mass dafa newoon ne affaire mu ngi si yoonu loxo mooy maanaam mu ngi si yoonu euh, tribunal mu ngi si loxoy tribunal mu ngi si loxoy li nga xam ne moom moo di yoon te moo taxoon Canal Plus mënu woon diffuser li nga xam ni moo di série boobu noonu depuis parce que bi yàgg nañ ko def série bi yàgg na mais vu que ne mu ngi woon si yoonu si yoon si loxo yi yoon mënuñu ko woon diffuser kon tey jii nii bu fekkee ni dañ ko diffuser. c'est quoi le pro c'est quoi le link en fait lan moo tax masse ba léegi gisuñu ko mu génn parce que du tey la affaire bi génn mooy manaam li nga xam moom moo di saaxay màngaan du tey la affaire euh, na si li nga xam ne moom moo di Netflix yàgg nañ ko gis d'ailleurs maa ngi doon demande wu mais maa ngi doon xaar pour gis quoi peut-être mu nekk des fois des fake news des bad news yoo xam ni même tubaab bi tam dañuy def bad news mais bi ma ko gisee si li nga xam ne moom moo di li li link li nga xam ne moom la si affiche li nga xam moom si biir plateforme Netflix alors là foog ñu demandé te bu vous rappelez masse dafa newoon dafa am li nga xam ni moom lay laaj mooy un million d'euros lay laaj pour mu mën a bàyyi li nga xam ni moom moo di film bi gannaaw moom def na si li nga xam ni moom moo di mbindam ba pare def na si li nga xam ni moom moo di des frais pour continuer kon d'ailleurs est-ce que Mass warul ñëw wax ak li nga xam ni moom moo di sénégalais yi vu que ni moom moo ñu dugaloon si li nga xam moom moo di problème boobu noonu ku nekk xeexle ko ku nekk kaasle ko kon tey est-ce que jotul Mass mën a ñëw fii nii expliquer Sénégalais lan mooy xew quoi bon loolu mooy li nga xam ni moom laa bëggoon ñu waxtaanee ko d'ailleurs dinaa def benn vidéo boo xam ni dinaa expliquer lépp li nga xam ni moom mooy xew si li nga xam ni moom moo di MASS kon ko moom si wàllum bi la nekk ñun dañuy chronique si hip hop bi dinaa essayer xool quoi parce on parle de un million d'euros wala rien parce que lii xaalis la un million d'euros mooy maanaam plus d'un presque un milliard si li nga xam ni moom moo di Sénégal mooy je moom mooy six cent six cent six cent mille six cent mille euros non moom mooy mooy ñaata sax un million d'euros jàppale la ma Sénégal mooy six cent mooy mooy un million Sénégal mooy ñaata sax mooy mille cinq cent mooy mille cinq cent un million Sénégal mooy mille cinq cent wu moom mooy un million Sénégal environ foofu lay nekkee kon tey jii bu ñu amee un million d'euros moom mooy un milliard cinq cent mille bu bu bu bu bu Sénégal et alors gars yi loolu il faut il faut que waaw 650 millions 650 millions voilà cent cinquante million millions xaalis la 650 millions xaalis la kon tey jii ni Mass dafa war a ñëw wax sénégalais yi fan la mujjee bu fekkee dañuy continuer combattre li nga xam ne moo di loolu noonu wala sénégalais yi am si expérience gis ni carrément tubaab yi chaque jour dañuy duma mooy maanaam amuñu benn euh, protection si li nga xam ne moom moo di maison culturel bu Sénégal amuñu leneen loolu noonu waaw loolu moom faaw faaw faaw faaw ñu wax si quoi faaw ñu wax si bu baax a baax a baax a baax a baax faaw ñu wax si non pour couvre-feu bi suba <laughs> naa leen defal benn vidéo bu leen wari naa leen defal benn vidéo seulement que dama bëggoon annoncé leen ni carrément ni fii dafa am loo xam ni faaw mu leer fii dafa am foo xam ni faaw mu leer je répète def na benn série présenté ko waa Canal waa Canal waroon tourner li nga xam ni moom moo di série boobu noonu bu ñu naree tourner série boobu noonu tourner wuñu ko en certain moment ñu sàcc selon ce qu'il a dit ñu plagier li nga xam ni moom moo di œuvre am bi ñu plagier œuvre ñu dem si li nga xam ni moom moo di yoon masse demandé un million d'euros pour mën a bàyyi li nga xam ni moo di série boobu noonu mën a dem Saaxoy Mangane pendant tout dañ ko tegul woon mooy maanaam si loxo si loxo yi yoon la nekkoon moo tax gisuñu ko woon si li nga xam ni moom moo di Canal Horizon ba mu demee li nga xam moom moo di Canal Horizon ba tey jii nii ñu gis li nga xam ni moom moo di Netflix mu jël ko c'est quoi le problème Netflix sénégalais bu defee film protégé wu ko bu baax Netflix da koy sàcc même wala sénégalais bu ko protégé biir Sénégal Netflix mën na ko jël tranquillement dugal ko si li nga xam ni moom moo di plateforme sans sans rien wala masse moom li tax mu noppi mooy dañ ko jox xaalis wala joxuñu ko xaalis en tout lii moom daf ko waral leeral sénégalais parce que sénégalais yaa ngi koy laaj waaw loolu mooy li nga xam ni moom moo di euh, vidéo bi nga xam ni waaw vi série bi commencé guma ko seetaan vraiment commencé gu ma ko seetaan déjà il faut ma xam il faut ma xam. ndax série bi maas dañ ko fay wala fayuñu ko bu buñ ko fayul wax dëgg fa ma man damay boycotté série bi man moom man personnellement du ma ko seetaan du ma ko seetaan parce que bu fekkee maas moom moom série bi c'est un sénégalais sénégalais boobu noonu ñu jaay ko doole yëngal ko ba mu neex après ñu ñëw teg moom moo di Netflix su ma ko seetaanee bon damay doon naafee quoi du ma ko seetaan ba léegi alxuraanul karim xam na ni premier épisode bi sax xooluma lan moo ne xaw ma sax couleur bi nu mu mel il faut que ma dégg li maas wax. maas bu fekkee dañ ko fay en fay nañ ko li nga xam moom moo di xaalisam mooy maanaam dégâts yi nga xam ni def na ko si perte xaalis yi nga xam def na ko si gars yi fay ko xaalisam alors là man dinaa jël li nga xam moo di bi ma setaan mais bu fekkee ni gars yi dañ ko jaay doole tribunal à fin mu jox li nga xam ni moom moo di canal raison si base yu leer nag laa dinaa ko setaan mais bu fekkee dañu jaay doole parce que maas amul xaalis boo xam ni moom la mën a défendre boppam ñu jaay ko doole nangu li nga xam ni moom moo di série mënu ma setaan série munu ma ko seetaan man personnellement munu ma ko seetaan waaw loolu laa bëggoon wax taf-taf non non bu fekkee bu fekkee ni maas fay ñu ko li nga xam moom moo di xaalis buñ ko fayee ok mën nañ dem seetaan parce que nekkatul yëfu maas yëfu canal la te ay sénégalais ñoo fa nekk ay ñoom Canabasse d'une part foofu tam il faut ñoo ko mais bu fekkee nag dañu jaay doole li nga xam ni moom moo di masse képp koo xam ni bokk nga série bi même bu fekkee ni xaalis moo tax nga dugg si si complot boobu nga bokk parce que dañ jaay doole sa doomu réew nga dem teewal li nga xam ni moom moo di tubaab bi en tout cas man noonu laay raisonné quoi bu fekkee ni def beaucoup de personnes me diront ça mais man dama jàpp ni fekkee ni waa canal dañu jaay doole li nga xam moo di masse ñu boycotté série bi buñ ko seetaan au moins benn yoon sax sénégalais yi ñu ànd ak seen seen doomu réew ñu boycotté ko au moins benn yoon ñu boycotté li nga xam ni moom moo di série boobu noonu waaw ñu boycotté ko même bu fekkee y a beaucoup d'acteurs ces acteurs là ont déjà reçu leur argent jot nañ li nga xam ni moom moo di seen xaalis ñoom instant yi amuñu si benn problème bu doyee bu dawul ñoom amuñu seen benn problème parce que fay nañ leen li nga xam ni moom moo di seen xaalis kon tey jii ni ñu mën a def mooy il faut ñu défendre li nga xam ni moom moo di suñu jeunes yi nga xam ne ñuy créer tubaab ñëw sàcc parce que Sénégal dañ taamu wax ni diw sénégalais bi dafa dafa dafa plagiat benn affaire wala sénégale bi nii dafa dem sàcc benn affaire mais jamais ñu défendre li nga xam ni moom moo di sénégalais bi nga xam ni dañ ko sàcc exemple bu ndaw laa leen di wax boo xam ni ñu bëri mosuñu ko seetlu directeur use bu euh, fu leer laa ko teg ñoom dañ def benn clip boo xam ne dañu am li nga xam moom moo di seen idée def li nga xam ne moom moo di si terrain football bi noonu benn décor noonu ñu dem li gis ko si techno techno mi nga xam ne moo leen ëpp doole sénégalais yi kenn mosu si wax te pourtant Tekno dernier clip bu mu génnee dafa plagier li nga xam ne moo di directeur Youss te pourtant kenn du si wax mais tey jii il suffit que suñu benn artiste suñu benn scénariste wala kenn def benn affaire rek ñu ñëpp ñu xëpp ci ñee ne nañ dañu plagier ñeneen quoi ñoom ñoo ñu ëpp xel te pourtant masse idée bu mu am nii musul am fenn même les français là ñoom waa Canal Plus yooyu noonu gis nañ ni carrément dafa nekk benn affaire de génie boo xam ne kenn musu si wax il faut ñuy waxante non mais gars yi fay nañ leen ba pare ils les ont déjà payé je sais que ni seen promotion baax na parce que sont la majeure partie par exemple Canabasse n'est pas un acteur wala bu fekkee acteur léegi la si dugg def na li nga xam moo di série bi fay nañ ko xaalisam bon <laughs> anyway day continuer dund mais Mass dans tout ça mi nga xam ne moom moo créé lépp tey jii nii série bu amee c'est grâce à lui moom moo xalaat moom moo créé. tubaab yi bu ñu ko sàccee dañuy ngay modifier rek mais même chose lay doon à la fin parce que li ñu gis ci masse moom lañ jël parce que tey jii nii comme ni ma ko waxee scénario du moom mooy film film idée idée originale bi mooy film scénariste boo si mënti teg dina na bindal série man tey mën nga ma jox benn benn idée originale ma bindal la ci cinq cinq cinq série yu mbokk yu bokkul mais idée bi danga nga ko siy gis par force te idée boobu noonu moom la waa canal def waa saaxu màngal loolu lañ def te tey di maas moom mooy ki nga xam moom moo ci perte mais nag kañ la ci perte mooy bu fekkee fay ñu ko mais moom un million yu même bu dee dañ ko fay sax cent mille euros sax c'est bien au moins am na lu mu si récupéré mais li ñu bëgg mooy maas si boppam mu ñëw leeral sénégalee yi ndax dañ ko fay wala ñu ko bu ñu ko fayee alhamdulilah ñu xam ni bon sénégalais yi ñëpp si gagné muy acteur yi muy masse kon amul benn cool-cool mais bu si gagnewul xaalis bu fekkee waa kanaal dañ ko battre foofu tamit faaw ñu faaw ñu boycotté li nga xam moo di film tant que sénégal voilà loolu mooy li nga xam ni moom mooy live bu ndaw bi ma bëggoon def taf-taf dinaa si gën a indi leeral ah, maa ngi jéeglu nag mais xam nga suba moom dañuy liggéey vu que dama ko gis rek ma ne fallait que ma partagé ko sénégalais ñu bàyyi xel bu baax si loolu noonu te site yi j'espère ni am na ñu koy seetaan nañu fexe nu ñu def ba interview li nga xam ni moom moo di euh, MASS maas moom noonu pour ñu xam fan la affaire bi mujjee parce que moom bi problème bi amee dafa ñëw Siti invité ko mu wax ak sénégalais sénégalais yi ànd ak moom si li nga xam moom moo di xeex boobu noonu ñëpp wax nañ si ñëpp jàppale nañ ko mais tey jii tamit bu amee dara loo xam ni war na ko mën a wax war na ko mën a wax na ko wax sénégalais xam fu ñuy mën a taxaw quoi parce que série bi nii dañ ko war a boycotté bu fekkee dañ la dominer mais bu fekkee fay nañ la war nañ mën a jàppale yeneen sénégalais nii carrément pour ñu gën a mën a am euh, possibilité de jouer yeneen série voilà loolu moo nekkoon li nga xam ni moom mooy deal bi waaw série bi moom xoolal nañ ko bàyyi ba keroog ñuy am lu leer si li nga xam ni moom moo di MASS mais aussi tamit MASS na ñëw prouver ni carrément ni dañ ko dóor dañ ko duma wala fay nañ ko li nga xam ni moom moo di xaalis ko fayee xaalis xaalis boobu xaalisam ñun suñu yoon nekku si dañuy xam ni c'est le Sénégal qui gagne mooy li nga xam ni moom moo taxoon ma ñëw def benn live bu sew rapidement ah, ñu jox ne daje suba incha allah si beneen vidéo je vais parler de de. de Samba Peuzzi at Ngaaka Blindé am na benn affiche bu ma defoon si Instagram bi loo am importance laay wax si li nga xam ni moom moo di monde hip hop bi kon aussi tamit dinaa wax aussi tamit si li nga xam ni moom moo di couvre feu bi si semaine bi incha allah di ngeen jot ay vidéo yu bëree bëree bëree gannaaw dugg leen si li nga xam ni moom moo di nouvel an bi maa leen di sant di leen gërëm gars di leen jox daje si beneen vidéo loolu wes la woon ak yéen wasalaam